Euh, loolu lu war la feeling la et puis wareef la et puis ñooñu ma ko defal dañ ko yeeyoo dañu tolloo ak loolu man Youssou dama ko bëgg du musique am kese moo tax ma bëgg ko nit ki laa njëkk a bëgg ni muy doxalee euh, mu nekk nit boo xam ne dama dafa daf ma marqué daf ma marqué pas seulement li muy way ma ne kii il faut ma rendre ko hommage Youssou man dama jàpp ne amul président bu ko gën Bizé mais man baabaam di saa bu ma ko woowee bu gisee sama appel n'importe quelle heure daf may woo daf may rappelé su tukkee même buy roaming il me rappelle je dis ces gens là ñii ah, dañu nite quoi man baabaam di du ma dara parfois may busy busy lu ñu woo ma du ma wuyu te te kii moom moo ma gën a busy dix mille fois il répond tout le temps au téléphone je dis ces benn euh, benn euh, ay ay ay ay cent mille emplois ou whatever ba pare du ma wax loolu mënul marqué ay génération te du ma wax mbaaxam su ma munoon bëree nga xam euh, damay bëreel Tyson su ma mënoon bëree damay damay bëreel keneen comme je l'ai tantôt dit quand tu es un excellent footballeur man dama yàgg bëgg El Hadj Diouf parce que dafa defoon dara pour Sénégal dama yàgg bëgg Ablaye Wade dafa dafa def dara ma gis ko je suis comme ça de nature soo defee dara ma dama lay bëgg de nature ba keroog nga may wan leneen Youssou maa marqué Omar Pène maa marqué Omar maa marqué surtout lenn moo gën a graaw ci Omar euh, moom il est unique dans son genre li muy def musicalement boo seetloo amul keneen kuy def copie am et pourtant tu vois des copies de Youssou copie de Thione Seck copie de keneen ak keneen mais copie Omar non doo gis. d'accord album bi. def na ay ñaari at ci ginnaaw maa ngi ci doon xalaat mais musuma toog ne xaaral ma def ko dama la wax non il faut ma def Umar Pène vraiment il faut ma def ko et ça m'a pris euh, juróom benn weer six mois pour ma toog enregistrer album boobu et yombul woon ay yombul euh, parce que tout simplement musique bi nekk ci ginnaaw ak li nit ki di way bokkul te boo fekkee da nga bëgg def adaptation il faut que ñoom ñaar ñu xaw ñu euh, ñu bokk ba pare bañ a bokk vraiment parce que sinon répétition lay doon te nit ki dégg roy bi moo lay gënal <laughs> dégg piir bi moo lay gënal roy bi quoi donc il fale ma changé ko yombul parce que ay son Omar Pène reprendre ko waaw je pense que am na ay kii image yu doon jàll am na ay moment yoo xam ne dama doon jàpp sama bop sax je te jure am benn dangay def di dindi def di dindi ba sonn c'était pas facile. d'accord Mhm. c'est une bon man mbalax naa trop ah mbalax naa trop euh, ak euh, artistes yi ngay dégg yëpp ma def seen album dama koy def mu mbalax même suuf su dee dama koy def mu dal xam nga mais bu jamono laajee ma përëb përëbee ko dama koy përëb përëbee ren boo dégloo moom si ñoom Viviane yooyu ay siggi ak yooyu mu traditionnel euh, dama changé un peu de style malgré que affaire bi dal na tey na et mais pour man sama style lii moom mooy li ma gënal. lii mooy li ma gënal euh, je me retrouve plus dans et nit ñi dañ foog ne public bii amul mais lii mooy gën a jaay mbalax album bi am na sept titres mais il faut même diir que am na douze titres parce que booy seetlu morceau bu nekk day dem ba ci biir beneen morceau jël ko mu nekk medley donc euh, mais sept titres la quoi lañ titré. waaw dafa surtout euh, bi ma gën a marqué nag boo xam ne moom it fale ma jël ko mooy Dorobe ah boobu parce que man bi may xalee bu ma ko daan déglu daf ma daan neex quoi ça ça daf ma doon neex dama na wax waa ji créé vent yi nan la créé vent yi ko je me posais tout le temps cette question euh, silmaxa munoo lim répertoire lu euh, max Pène te doo wax waxu silmaxa silmaxa je pense que am na am na xale yu ndaw sax yu xam silmaxa am na mag ñu xam silmaxa et j'ai tenu ma ne silmaxa il faut ma def ko pour yow nga comprendre ko pour keneen comprendre ko mais am na morceau yoo xam ne def naa ko boobu ma sax xam nga euh, am na morceau yoo xam ne nag mélodiquement daf ma neex te yooyu boo ko dugalee jëm ko de rendre jazz yi dina possible donc du morceau yëpp ngay mën a jël man personnellement munuma ko am sama xam-xam eggagul ci jël morceau yëpp def ko rendre ko mu jazz yi nii mais morceau yi ma choisir dama ne mun naa ko def je pense que mun naa ko xaw a réussir quoi parce que je ne suis même pas sûr de l'avoir réussi parce que bon kenn ku nekk ni nga koy déggee yow mun na la neex public bi tey mën na la neex keneen déglu ko mun a neexu ko ah et et c'est ça la musique c'est ça l'art quand tu après yow da ngay dessiner rek nga joxe kenn ku nekk nag euh, un jour président abla daf ma ne daf ma ne pour yow ta tableau ta tableau bi ñu dessiné bët bi ko xool moo rafet wala waa ji moo mën a dessiner bu fekkee tablo bi dafa rafet. ma def benn temps de réflexion mu ne ma bët bi koy xool la parce que bët bi rek moom moo la mën a wax ndax rafet na ou rafetul. Euh, Viviane euh, moo def këru Beyrouth euh, sinon un ami un frère moom laay wax que ne fayuma ko sax sama Aliwan sama on a grandi ensemble moom moo def batterie et vraiment batri c'est c'est nickel nickel nickel ça il faut le dire e le souligner Il euh, y a Tcherno Sarr, qui est un excellent musicien, mais aussi qui est un ami. Parce que vous, vous évoluez dans le même sens. bëgg nañ la personnellement bu ñu déggee lu leen métti sax dañu la koy nëbb duñ la ko nettali ñu ngi xool ni nga ni ngay concentré woo loo ñooñu ay nit yu baax lañu. Jano Mendy ki prépare Jano moo joué guitare yi moo joué ci Viviane moom c' est un musicien jazz au moment où je vous parle il prépare un album jazz et pourtant dafa ñëw joué ci album bi le monde du jazz, c'est ça. C'est des improvisations, c'est des, des, euh, des, Comment dirais-je encore Je ne trouve pas le mot. C'est des invitations à l'improviste. Hein, tu vois un guitariste qui passe à côté. Mon le boy, il dit ah, Après, il dit quoi. Nous, tu joues. Avec T-Bass aussi. ak euh, T-Bass aussi. Avec euh, Aliou Sek, moi, je ci Super Diamono. Dans mes bains, je joue. Lim, de Euh, sérieusement ak benn euh, man sama sama ay grand frère sama ay euh, sama ay grand frère sama sama lépp ñooñ dañuy ànd ak pen ñoom ñoo màggandoo ak pen mais man personnellement pour vous dire vrai je suis pas ce genre qui va vous raconter des histoires relation bi ma am ak pen ci scène bi la mais j'ai tenu à lui rendre hommage parce que c'est un homme boo xam ne dañ ko war a rendre hommage euh, ni ma miinee Youssou miinee wu ma ko pen ah euh, non loolu ah, promo rek yéen xam nga ma promo <laughs> pro promo ba mu saf rek am na am na feneen fu ñuy fël de am na feneen fu ñuy fël yoo xam ne bon bëgguñu wax lépp mais on va utiliser à l'aide de de nos amis journalistes. Euh, Fadel, qui est mon attaché de presse, que, je salue de passage encore, lui, euh, généralement, il m'aide pour euh, tout ce qui est euh, quotidien. Il s'en occupe avec euh, les réseaux sociaux. On est, on, on, est un label très organisé. Mon assistant Tafa qui est là, c'est des gens qui sont très organisés, avec un petit bureau, avec, avec un grand studio aussi. Hein? Et nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, bugguñu def lu loo xam ne tout le temps nit ci dañ koy gis moo tax tey nga ñu ñëw fii. of course yes moo tax ma ñëw ci cadre Lamantin Beach bi cadre bu rafet bi li tax li tax euh, je pourquoi ça euh, j'ai voulu vous faire plaisir me faire plaisir et faire honneur à mon grand frère euh, moom tey jii lii la tollool amaana sax lu ko ëpp la tollool xam nga bugguma ko bugguma woon def affaire bi n'importe où n'importe comment il fallait chercher des partenaires Sencartour Lamantin et tout ça indi leen fii pour euh, pour pour que ñëpp mun a kontaan après nag ma dem seeti yeneen sponsors yi euh, ñooñu maa ngi ñëw xam nga dem seeti GFM euh, whatever ok